rahmaan rahim yaasiin yàlla moo gën a xam lum ca jublu wal quraanil hakiim sunu boroom mi ngi waat ca alquraan bu xereñi bi innaka la min al mursaliin yow day yaa ngi bokk ci ñi ñi yónni ci yónninti ala siraatin mustaqiim yaa ngi ci yoon boo xam ne bu jubla tanzil al aziz rahim lii di wàcceeg ka not lépp ci kattanam kay borom yërmande ja li tunzira qawman ma unzira abaa'uhum ngiree nga waar xeet yoo xam ne kenn musul waar seeni baay fa hum gaafiluun ñoom day ñi ngi nekk ci seen càggante gi laqad xaqa al qawlu ala aksarihim doonte ne kaddug yàlla ga yey na ci la ëpp ci ñoom fahum laa yuminuun ba ñoom day duñu nekk di aji gëm inna ja'alna fi a'naqihim aghlaala ñun ñoo def ci seen loos ya la nga xam ne mooy ay njoñ di chaîne yañ ko chaîné fa hiya ila al azqaan chaîne yooyu dem na ba tóoj seen sikkim ya fahum muqmahuun ñu doon ñoo xam ne ñu téen lañu ca kaw wa ja'alna min bayni aydihim sadda ñu def la nga xam ne mooy ci seen kanam ab barrage wa min xalfihim sadda def ci seen gannaaw leneen barrage fa aghshaynahum ñu daal di leen di yiir fa hum laa yubsiruun ba ñoom duñu nekk di gis wa sawaa'un alayhim dana yemoo ci ñoom képp a anzartahum am lam tunziruhum nga leen di waar ak nga leen ñàkk waar laa yuminuun ñoom duñu gëm mu ngi noonu mbokk lii mooy suuratu yaasin saar boo xam ne siiw na lool ci téere bi yàlla bi am na sax sunu yenn mag yuy dem ba koy tudde seeni doom yaasin nangam ala kulli xaal wax nañ ci lu bari ay xadis yu bari rot nañ ci doonte ne ni la ñuy wax mooy buñ dajalee xadis yépp dañuy gis ne du ñàkk ngëneel bu ci nekk donte ne buñ ko teqalee benn benn ca ñoom bu nekk ñàkkul lu ca borom xam-xam yi wax soo dellu woon lu mel ne daal tafsir ibnu kasir moom daana wax ne la nga xam ne mooy mag ñi démb amoon nañ expérience ci ne doomu aadama bi boo amee ab aajo buy jafe ngay jàng suuratu yaasin di ñaan yàlla yàlla mën na faj aajo boobu xam ngeen bokk na la gën a siiw ci xadis yi ñu wax ci yaasin mooy iqra'u ala mawtaakum suratu yaasin day leen jàng ci seen ñii dee suratu yaasin ba mag ñu bëri buñ gisee seen mbokk sukuraat ñu ci jàngal yaasin almuhim saar la boo xam ne mi ngi noonu siiw na ci sunu mag ñi donte ne la taxoon mu jóg mooy delloo nit ñi ci yàlla xamal leen yoon bu leen di mën a teete ba tàbbal leen ci ngërëmal yàlla suñu borom yàlla ubbee ko yaasin nga xam ne moo xam lam ci nam am na ñuy jàpp naan turu yonent bi la comme taaha ak yu demee noonu waaye la gën a jub mooy yàlla xam lum ci nam borom boobu mu ne mi ngi waat ci alquran waat ci màggaayam doonte ne mbokk lépp loo gis yàlla waat ca taxul yow jullit nga jàpp ne war nga caa mën a waat ba mu des alquran alquran jullit am na droit waat ci alquran ndax alquran waxi yàlla la du mindaa fanu yàlla li ñu jublu ci alquran mooy alquran ci boppam ay alquran turi bi ci boppam alquran bi ñuy jàng léegi mu des nag téereb alquran ndax mënees na cee waat loolu moom la gën ñi bañ koo def donte ne ne wadelul ci borom xam-xam yi mën a li xusay miin ak yu demee noonu waa ji jël téere bi wàcc it kenn doox dafa bokkaale waaye comme gis ñu woon saxaaba yi daan jël ay téere di ci waat la gën rek bu dee da nga ne da ngay waat ci melokaan ci melokaanu yàlla yi nga ne yaa ngi waat ci alquran ñu ngi noonu yaa ngi waat ci alquran ci alquran mooy la yàlla wax jëmale ci mbindaaf bi sunu borom subhanahu wa taala mu ne téere la boo xam ne alxakim la xakim mooy yóbbu ci xikma muy sagesse ay mooy téere bi teete ku nekk fa nga jëm la fa baax alquran moo la koy teete moo lay won sa digganteeg say waajur li ci alquran wax nañ dellu jàngalekat yi nekk ci adduna bi yépp demal Chine Japon demal fu la neex nga xool li yàlla wax noonu lañu war a def ak waajur doo gis kenn ku ko dàpp mi ngi noonu lépp mi ngi noonu muy fàttali benn waaye américain boo xam ne dafa dajoon daje woon ak benn jullit ñuy wax di wax bay wax ci wàllu alal ak wàllu miraas léegi jullit bi ubbil ko suratu nisa won ko yàlla ni mu tërali miraas waa ji bi mu ko liiree ba pare mu ne laay dëkk te ñu ay dof lañu boo dajale woon législation Amérique yépp ak lépp lu ñu wax ci wàllu alal dabul lii lu toll ni bën bënu pusa mbokk suñu borom mooy ka nga xam ne mooy xikma mooy alxakim lépp ci noonu la ko suñu borom réglé borom boobu nag mu ne yow yonent bi bokk nga ci ñi yàlla yónni innaka la min al mursalin yow day bokk nga ci ñi yàlla yónni loolu kon muy dana am ñuy woote ne yàlla yónni na leen ci yàlla yónniwu leen te it loolu mbokk ni ñu leen ko waxe woon ci tafsir yi passé yonent bi nee na bu ma fi jógee dana am fanweeri nit yu feeñ sama gannaaw ku nekk jàpp ne ab yonent yàlla lañu waaye duñu tus dañoo réer borom boobu it ne yow yonent bi yaa ngi ci siraati mustaqim léegi bi ñu julli takkusaan wax nañ yàlla ihdina siraat almustaqim yàlla jubal ñu ci siraat almustaqim insha allah léegi bu ñu julli timis ñaanaat ko yàlla mbokk siraat almustaqim mooy la yonent bi nekkoon lan la yonent bi nekkoon mooy sunnaam lam doon wax doon ko jëf ay saxaabaam def ko ci kanamam mu seetaan ko loolu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni nii ñi ngi ci biir téere yi lii ngeen yor mooy alquran képp ku jógoon ne moom rek ngay jaamoo yàlla alku nga yonent bi waxoon ne ne dana am ca it am na ñoo xam ne seen diine ne nañ alquran kese la ñuy jaamoo yàlla boo demee ci ñoom da ngay gis ne daan julli mais bu ñuy julli benn rakkaa la ñuy julli parce que nee nañ yàlla nee nañ nañ taxaw rukkoo sujud su ko defee dañuy taxaw rukkoo sujud julli ga jeex na mi ngi noonu amaa ngi ci dégg ay taayaat yi sami allah bi man xam ak yooyu yëpp moom amu ci parce que ñoom gëmuñu xadis te mbokk ku gëmul xadis bu diine l'islam doon ñetti parti ñaari parti yi weddi nga ko mi ngi noonu ndax yonent bi alayhi salaam moo ne utitul quran wa mislahu maa wa fi riwaaya wa mislayhi maa yàlla mu jox alquran ak lu toll ne moom ci sunna beneen riwaaya mu ne ak lu ko duubal te booy seet sunna duubal na alquran mi ngi noonu takkusaan ji ñu doon julli sànq amul benn aaya bu lay wan ne ñeenti rakka la war a doon abadan lépp sunna moo la ko jàngal kon yaa ngi ci siraatul mustaqim di loo xam ne mi ngi jóge ci al aziz bi not lépp muy suñu boroom waaye mooy ar rahim ki am yërmaande ci ay jaamam moo tax bokk alquran lépp yërmaande la li ci tubaab bi gën a bañ yërmaande la te mooy code pénal bi nga xam ni dañ ne ku fi rey nit rey leen ko ku fi njaaloo masa sëy rey leen ko ku fi sàcc daggaleen loxoom loolu lépp yërmaande la ci biir société bi i nga noonu borom boobu subhanahu wa taala ne ngiree na nga waar ay nit ñoo xam ne kenn musta waar seeni maam ñoom ñi ngi nekk ñoo xam ne ñu saggan lañu te waa Makka yonent musu faa feeñ looloo tax ñu sori woon loolu diine depuis Baye Ibrahima mi juróon Ismaïl la diine commencé woon di fay di fay di fay ba bi mu yegg si ñoom daanaka dara desu ci woon ñu saggan lañu woon fii dalalin mubin la leen yonent bi fekk yow nag léegi yónni naa leen pour nga waar leen donte ne yéen mbokk jullit nekkati doomu aadama balaa gindeeku dañ koy waar waaye tey ana ñan ñooy waaraate mbokk li ëpp tey ci jullit ñi déggatuñu ay waaraate lan la ñu dégg mooy ay xuraafaat kese da ngay gis ne li yonent bi alayhi salaam bàyyi woon ci sunnaam mu nekk garanti waaraate sax li ëpp ci jullit ñi tey jii xañ nañ leen ko ca mooy xutbab jumaa mbokk suñu borom daa prévoir oon jullit bi au minimum chaque semaine war ngaa dem ci kanamu imam imam waar la delloo la comme portable yi ngeen di chargé ngay jàppati loolu ba semaine prochaine mais tey li ëpp ci nit ñi tey rawatina réew yi mel ne suñu réew imam day ñëw préparé ab xutbaam daal di ñëw tiim nit ñi wax leen li muy wax un pour cent ci jumaa ji dégguñu ko ñu jóge fa dem seen yoon ba am na dëkk yu bari yoo xam ne yow mën nga nekk doomu jullit nekk fa ay ati ati at doo dégg yàlla nee na yonent yàlla nee na am déet am na fii wallahi doo ko dégg fen ndax ya ñuy woote tudd ko diine buñ demee keneen lañ fay màggal keneen lañ fay tagg ko dul yàlla en général loolu kon fokk suñu borom ne da ngaa war a ñëw waar ñi ndax ñu saggan lañu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yey na ci ñoom kaddug yàlla li ëpp ci ñoom ba duñ gëm te mbokk suñu borom moo ne woon dinaa feesal sawara la am la anna jahannama min al jinnati wa naas ajmain loolu yàlla waxoon dina feesal sawara nag yey na ci ñi ëpp ci ñoom moo tax boo leen waar yi duñ mën a gëm suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne man maa jël ay chaîne chaîne seen baat yi ba mu tóoj seen sikkim yi ñu daal di teen jëm ca kaw boo ko xam nañ ne ku mel noonu bu bëggee dox ci yoon du sotti bu ñu tóoj ab boppam mu dem ca gannaaw mu bëgg a jaar ci yoon bu jub dem abadan du sotti suñ borom ne maa def baaraaj seen kanam ak seen gannaaw ay ba duñu mën a génn ci lu bon duñ mën a jëm ci lu baax ñu ngi noonu duñ mën a génn ci lu bon bay dellu gannaaw duñ mën a jëm ci lu baax ma def ko seen kanam ak seen gannaaw te loolu lan moo ko waral mooy bañ leen waaree ñu lànk la leen yàlla subhanahu wa taala fay loolu wa tax mu ne fa lamma zaagu azaaga allahu qulubahum baram boobu nag subhanahu wa taala ne kon yow yonent bi bul sonn gis nga ñii nga waar leen ak nga ñàkk leen a waar loolu lépp moo yem ci ñoom yéeféer yi nga xam ne dañu loo gis dëgg weddi ko ci seen weddi googu ci lañu nar a jeeyee mi ngi noonu
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونحن ما من مبين
sunu boroom jalla wa ala mu ne innama tunziru man ittaba'a zikr yow day yaa ngi waar ka nga xam ne day topp waaraa tega wa xashiya arrahmana bil gayb mu ragal yàlla ci kumpa fa bashiruhu bi magfira ku mel ni bégal ko ci jéggal gu ko yàlla jéggal wa ajrin karim ak pay bu tedd bu ko yàlla di waajal inna nahnu nuxyi almawta ñun yàlla ñooy dekkal ña dee woon wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum ñooy bind lañ jiitaloon di bind seeni jeexital wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin te bépp mbir day peek nañ ko ci njiit bu leer te mooy téere bu leer nga xam ne mooy laxwil mahfuuz mi ngi noonu bokk suñu boroom mi ngi wax kan mooy jëriñoo waaraate waaraate mbokk ka kay jëriñoo mooy ka nga xam ne pare ne pour jëfe ko ca mbokk bari na ay doomu aadama yoo xam ne daan dem jàngi lislaam am na ñu ñu tuddee orientaliste dañoo jóge ci tubaab ya jàng lislaam ba mokkal ko bu baax di bind nag ay téere pour dal lislaam mu am yi ci ay jullit ñoo xam ne daan jàng lislaam mais ay diplôme moo tax ñu koy jàng jànguñu ko pour jëfe ko ñooñi lañ jàng du leen jëriñ dara doomu aadama bi kay yàlla di jëriñ ci njàngam mooy koo xam ne nii pare ndax pour jëfe la nga xam ne moom lay jàng topp ko te it mbokk alquran mi ngi noonu dañ ko war a topp suñ borom mu ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen la nga xam ne moom la ñu wàccee mu jóge ci seen borom jalla wa ala ka nga xam ne moom ngay waar mooy ki ragal yàlla ci kumpa am ñu ko firee ragal yàlla ci gisuñu ko am ñu ko firee ragal yàlla fu ñu leen kenn gisewul ka nga xam ne bu nekkee fu kenn yëgul it du fa def mukk lu neexul yàlla kees gi muy gérer ndaw sii ko woo fu kenn nekkul bépp musiba ba mu mën a def te mënoon na koy def kenn du yëg waaye mu ragal yàlla ko mel noonu da ngay gis ne bu nekkee ca mbooloo ma taxut a wax da nga xam ne bu wéetee du def lu neexul yàlla bu nekkee ca mbooloo ma taxut a wax kon kooku ragal yàlla ci kumpa dey sunu borom mu ne bégal ko ci njéggal goo xam ne mi ngi koy xaar te mbokk doomu aadama ak loo góorgóorlu góorgóorlu mënoo fexe ba du léeg-léeg yàlla nattoo la nga tarxis ci bakkaar na doon lu làmmiñ way def wala lu loxo bay def su boobaa da ngay gis gaawal tuub sunu borom yàlla dana la jéggal te it sunu borom mu ne ñooñu la nangoo topp si toppal quran ji bégal leen ci ni pay gu tedd mi ngi leen di xaar te mbokk pay googu mooy aljanna borom bi nag ne ñun ñooy dekkal ñi dee woon ñun ñooy dekkal képp ku dee woon yawmal qiyaama ñooy bind la nga xam ne moom lañ jiitaloon ñooy bind la nga xam ne mooy seen jeexital ya lañ jiitaloon mooy la nga xamee ni nii ñoom ñoo ko def ci seen bopp seen jeexital ya bokk na ca la nga xam ne nii ñoo ko jàngale wala mu doon lu law ci ñeneen yeneen ci bi alayhi salaam ne nit ki bu dee ay jëfam day dagg lu dul xam-xam yi nga jàngale woon ñu koy jëfe sa gannaaw loole bu doon xam-xam bu baax la ku te jëfee tuyaaba ja ma ngi lay fekk si waaye bu doon lu bon nga jàngale ña koy jëfe sa gannaaw bakkaar buñ ca faggoo dañ li bindal lu tol noonu gannaaw ba itamit sarax yu baax yi nga bàyyi woon ñi law sa gannaaw loolu dañ ci bàyyi xel bu baax wallahi da ngay gis ne kii di Ousmane Ibn Affan bi nga xam ne nii jullit ñi ñëw nañ madina fekk fa benn teen bu mag bu fa nekkoon benn yahut moom ko jël ndox mi di ko jaay julit ñi kii di Ousmane moo dem jënd ko ci moom ci lu jóge ñaar fukki junni ci ay dinaar fay ko daal di def ndox ma gratuit ci julit ñi moo jël jardin ba nga xam ne moom la àndaloon jëmbat fa lu jóge ci ay ñaari junniy tàndarma daal di ne lii da ko da ko bàyyi comme waqf lépp lu fi jóge genn wàll gi nañ koy jox jirim yi ak miskin yi li ci des ñu investiraat ko ba ko loolu tey dem nañ ba toolam boobu am na quatorze siècle léegi gis nañu ne am na ay hôtel li ñu tuddee hôtel cinq étoiles ci ko xam hôtel ci Madina yoo xam ne tool boobu moo ko jur ba tey liy jóge ci hôtel yooyu mi ngi dellu ci miskin yi ak masakin yi ak ak jirim yi compte ya ci nekk ba tey Ousmane Ibnul Affan moo ci nekk te xoolul loolu mbokk jullit depuis quatorze siècle loolu kon nga gis aussi def lu baax muy law sa gannaaw la mën a jur mi ngi noonu bokk na ci asar yi doom yu baax yoo bàyyi ñuy jaamu yàlla comme ni mu bokk ci asar yooyu mbokk jullit mooy la yonent bi waxoon bani salama ay benn giir lañu woon boo xam ne dañoo dëkkoon fu sori ci Madina léegi pour jóge fay ñëw ci jàkka ji dafay doon lu jafe ci ñoom te wallahi démb am na ñu ma dégg sama gannaaw kenn ku naan man maa ngi jóge Malika al almuhim loolu mbokk ñu ne daal ñun dañoo bëgg a jóge si jàkka ji ñu jënd benn pàkk ci wetu jàkka ji te toujours bu ma ko waxee sama xel dem ci sunu mbokk Abdul Aziz Touré yal na yàlla sàmm ko mu ne xam ngeen luy kër gu gaaf ñu ne ha mu ne kër goo xam ne boo fa dëkkee doo mën a dem jàkka ñu ne kër goo kër goo gaaf la jullit war na faa jógee dem seeti feneen fu mu dëkk léegi nag ñoom ñu ne kon dañuy ñëw ci wetu jàkka ji dëkk fi biñ ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne hee yéen bani salama diyaarakum toog leen foofu ngeen tokk ci catu madina tuktabu asaarakum dañuy bind la nga xam ne mooy seeni jeexital te yi tamit jéego yi nga jóge sa kër ba ñëw ci jàkka ji yàlla dala koy bindal te it jéego yi nga delloo it yàlla dala koy bindal tuktabu asaarukum loolee ñu daal di toog fa ñu toog loolu moo tax borom xam-xam yi ne maa qaddamu mooy jëf ji wa asaaruhum mooy fañ jaar ba jëf-jëf ji tey masalan ñi ngi daje ci jàkka ji julli ku nekk am nga daraja ñaar fukki julli ak juróom-ñaar mais ki nga xam ne dafa dox 100 mètres dugg ci jàkka ji yéemul ak ki nga xam ne moom dox na 300 mètres avant muy ñëw yéemul ak ki dox 500 mètres avant muy ñëw yéemul ak ki nga xam ne daal bokk lamb poosam paas ba pare dox dooga ñëw kon loolu nga xam ne moom ngay def loolu lépp yàlla dala koy bindal ñu ne lu bon la it noonu la demee waa ja nga xam ne nii dafa demoon di njaaloo pexe ya muy def xaalis lu muy génn di ndax ndaw seeg njuuj njaaj yi muy def ak yooyu yëpp yàlla dana ko ko bindal booleeg bàkkaaru njaaloon bi mi ngi noonu sunu borom yàlla kon mu ne maa qaddamu wa asaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin amul lenn loo xam ne jaami ñi ngi koy def lu dul yàlla peeg na ko ci téere boo xam ne bu leer la te mbokk sunu borom ñaari téere la am téere bu jëkk bi mooy bindoon na lépp lu jaam yi nar a def ba ila yawmi diin téere ñaareel bi mooy ay malaakaam ñi ngi bind li jaam yi def suñ demee yowmal qiyaama ñaari téere yépp dëppoo téere bu jëkk bi mooy xam-xamam ba téere ñaareel bi mooy seede gi mu seede moo ki malaakaam na lam xamoon ci ay jaama mi ngi ni def nañ ko te wallahi yow doom yow yow bàyyi sa njaboot xam nga leen xam ngoo xam ne man ngay tukki jox leen ay ndigal mu wóor na la ma samba mi moom li nga ko wax dana ko def waaye ma dembe mii du ko def am déet loolu am na sama mbokk professeur si bi daf may ñetti lii seen benn prof tubaab la woon gars yi ñu dem examen biñ demee examen am benn élève bu brillant ñu def examen mu échec am benn morceau mi gënoon a nulaar ci classe bi réussir tubaab bi ne non ça c'est pas possible dem ci bureau des examens topp copie yi ak professeurs yi topp topp topp ba ndekete yootu dañoo jaawale seeni dossier mu daal lii moo mën a am yaa ngi dégg lii moo mën a am ala kulli xaal kon en tant que prof da nga xam say jaam say say élève ba xam lu ñu nar a def yow borom kër bi am seetlu sa njaboot da nga ko xam say jabar ak say doom ku nekk xam nga la muy nar a la muy mën a jëf waaw gars yi ala yaalamu man xalaqa ndax yàlla moom xamul ah kay looloo tax mbokk yàlla condamné wul kenn favorisé wul kenn waaye yàlla ñu bind yàlla ñu xam wàcce nañu suñu ndigal xam ne ne ñii daañ jëfe ñii daañu lànk yal na yàlla boole ñu ca ñam xamoon ne daañ jëfe yal nañ yàlla musal ñuy doon ñuy lànk wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad da ngay dékk say loxo di loolu nga wax ñu yëkkati loxo ala kulli xaal nit ki mbokk buy sëlmal du nekk di wëlbati ay loxoom donte ne ne doomu aadama bi léeg-léeg daf lay am yëg-yëg boobu ba jamono saxaaba yi am nañu ko doon def di sëlmal di yëkkati seen loxo yeneen ci bi alayhi salaam ne nu ngeen def seen loxo yi ñu mel ne génn fas yi tourné nii kenn ci yéen buy sëlmal na tourné rek mbaggam sa mbagg rek ngay tourné asalaamaaleykum asalaamaaleykum mais loxo yi moom du tourné ndax nit ki mën na julli farata pare yëkkati loxoom ñaan ah kay bu la neexee julli farata ba pare yëkkati say loxo ñaan na nga yëkkati say loxo it wala nga yëkkati say loxo nga ñaan sunu yonent alayhi salaatu wasalaam nee na sunu borom yàlla dafa bëri kersa te dafa tedd rus na ab jaamam taxaw yëkkati ay loxoom ñaan ko ca mayu ko dara waxul nag da loo yëkkati sa loxo ñaan ñu may la waaye dina ca mayu ko dara te en général dana la defal la ko ñaan wala mu defal la lu ko gën mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah mu ne waaw waaw salaatu tasbih day nekk na loo xam ne borom xam-xam yi dañ cee am ay juuyoo yoo xam ne la gën a jeng ca juuyoo googe mooy xadis ya ca rot nekkul lu wér nekk ñu woon gisuñu saxaabatul kiram daan ko jëfe di ko saxal di ko def donte ne am na ay xadis yoo xam ne nii yu rot la xadis yu ca rot la waaye li ci gën a jeng mooy ak ñàkk wéram mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw am ñoo xam ni duñu bëgg ñuy laal seeni baaraam loolu moom ñàkk a xam la waaye suñu yonent yi daf ñu daan sahaaba sahaaba yi sahaaba yi dañ doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dañu daan tegale suñuy mbagg yi ak suñuy dojor yi ay dañu mbagg yi ni ñu war a tege noonu la tànk yi war a tege seytaane bañ ci jaar amma nag yow julit da nga war a bëgg sa mbokk julit sa der laal ab deram loolu da ngay gis dafay yokk cofeel yokk yërmande mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal problème mu meeca kaala boobu loolu moom ñu ngi ci wax fan yépp liñ ci mën a wax mooy kooku daal ab yàqkat la rek ab yàqkat la bu ñu tardeel jullit ñi ci ci ci ay ay ay ay mbiram yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu tere ne jigéen ñi bu ñuy nekk di yokk seeni bopp la nga xam ne mooy mèche yooyu man damaa waxul sax la nga xam ne mooy aram da ca nekk ci yeneen bi tere na ko waaye boo gisee lañ ci yàq rek am na benn usine mèche bu nekk fii ci Dakar wallaay lu yàgg yàgg benn waay bu fa doon liggéey nee na ma daan jaay 3 millions par jour mbokk 3 millions par jour xoolal fois 360 loolu ñaata la ah nga xam ne naata la donc doomu jigéeni jullit ñi plus 2 milliards ah plus 2 milliards suñ doomu jigéeni sénégalais yi daañ ko jël jënde ko lu neexul yàlla subhanahu wa taala et pourtant loolu ci seen xel rek la nekk. karaw gi leen yàlla defoon buñ ci buñ ci gërëmoon gërëm nañ ko li la koy gën a woon mooy am na xale yu jigéen yoo xam ne contraire ñooñ lañu damaa dem ci coiffeur bi nekk fële benn xale bu jigéen ñëw fekk ma fa eh jàlloo waaw dama bëri bopp rek nga wàññi ma sama bopp bi ma ne ko non man dama wàññi bopp jigéen yaa ngi dégg waaye ala kulli xaal mbokku jullit da gis ñoo xam ne ni ñoom karaw googu sax leen yàlla wutal bëgguñu ko sax dañ koy raser ba ba ba toll ni góor ñi donc affaire bi c'est des problèmes psychologiques rek la jigéen ñi bu ñu leen tàggatoon ci ne ñi leen yàlla bindee taaru na baax na mu jeex mais xeet sa bopp mooy tax ngay dem jëli ay rasta jëli ay cheveux naturel pour nuroog yeneen race yoo xam ne bokkut ak sa race waxumaa la cay nekk ci xasawaay baag coono yaag yeneen ak yeneen ak yeneen ala kulli xaal nañu xam ne daal bépp góor boo xam ne terewoo loolu xanaa da ngay taxaw ci ay plateau di ko daganal di ko encouragé xamoo diine yéene woo jàmm sa jigéen réew yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira musal ñu ci ay yàqkat yi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad